incha allah salaam ci juróom ñett ci weeru safar bis bu sax bu dul sàlli du sàppi yiw la saxal mam bambaa ko sabab moo ko sàkk ngir ñu santalee ko ko ki ñu sàkk muy bis bu màgg ñu ci màggal ku yàlla màggal ku mat le mata di wul dafa mat ba noppi matal xel ma màcc te yàgg a bul xam xarit ñaata mbindeef la maam xemmem loo leer gi dunda ruux bul xam xarit ñaata mbindeef la xirtal ci yàlla xel xëy di xel li ak a xel tu ubbi xol mu xéewalu ci leer gi ba du xef ak a xamal nu xayte ngir ñu bëgg xamtu xam le na lu bëri ci bile xarnu xarit xippil xool jàng xam ci li xalimaak maam xaadim xaatim ñu war a màggal bis mi génn mbàkk baari mu jëmmal dëgg bàyyi ci ginnaam lu bëri ci la jël noppalu ak noflaay daal di suul jël yoonu jixaat ngir liggéey rësuul war a nekk ki ñuy woowee xaadimu rasuul muccal na tey ñu bëri mbàkke yaa gore defar góor yàlla yu bëri dëgg mooy sa doole ay nit dëgg yu bëri ci sa ëtt nga boole mam bamba yaa di kang fóore gaay ñi ay coleen ay coleen ñu dem zikkër ak xasaay yit ñu dolli muy sotti di jolli taw féex la murit bi di noyyi di nokki di xelli mam bamba moo woote lu mam woote di su ko wuute salaamaaleykum